bokki internet ya xam naa ne tey moom Maroune Diouf ma sollowaat xaftaan nag tey di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen wax déwénati ak fooy mën a nekk buur a ngi lay nuyu di leen baalu di nuyu Maroune Diouf moo nami moo compagnon de guerre malfaiteur bu mag bi ah di nuyu Dodo ah sama sama lonko tey nag ñu seet si ndaana na parce que waxtaan ak moom lu bari di bu ca këccëg bu bu la nga leen nuyu di di leen ndokkeel te nag fekk ko sama kër sama kër doomu ndey Makhtar Diop suba teel di nuyu ñoom sëñ Mbàkke ah, ñoom Magor gaa yëpp di leen nuyu ñoom grand Assane bàyyiwuñ kenn bu buur nuyu waaw buur maa ngi lay fay maa ngi lay ziare maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la béggee bu baax a baax a baax di kontaan ci yow di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawféex di la ñaanal taysiiru Xaadimu Rasuul di ko ñaanal ñaanal ñëpp ñoom Medoune Diouf ak ñëpp di nuyu. di ziare di tatagal di baalo ak suñu xarit suñu wasila suñu sëriñ suñu suñu yoon ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul muy sëriñ Muntaxa al Bachir di ko ñaanal jàmm ak salaam di ñaan ñaan du fan ak wér di ko ñaanal tawféex ba lépp loo xam ne rek bëgg na fi ci yoonu murit yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba oyofal ko di gërëm nag samay xarit di gërëm sama yaay sama papa samay njaboot di nuyu ñëpp di baalu àq sénégalais yëpp di leen balaax di leen nuyu di leen siyaare <coughs> di baalu borom kër gi ak di ko siyaare bu baax di ko nuyu muy Makhtar Diop teel di sama xarit di sama mag di sama frère di sama wëllëre di sama nit koo xam ni tey am na fu ma féete foo xam ni su ma ko doon wax tey du ma fi jóg di siyaare ñëpp di nuyu sëñ Mbacke Diop di nuyu Magóor di nuyu Grand Assane di nuyu Fall di nuyu àdduna bépp daal maa ngi siyaare ñëpp. monsieur nu mu paase tabaski bi. waaw tabaski bi comme ni ma ko doon paasee rek xam nga man moom lépp lu may def ci àddina rek dama koy jaarale ci yoon. Mm-hmm. te lépp lu may def ci àddina rek damay xool la sama ñoom baay doon def. ak sama ñoom yaay ak samay maam lañ doon def ma koy def. Mm-hmm. bi ma xëyee fajar teel julli naa ndax man fi mu ne nii bokkuma ak sama yaay kër. Mm-hmm. damaa dem ci guddi gi laa dem fanaani sama kër yaay. man ak sama njaboot ñu dem fanaani fa bu ñu yeewoo fajar. <coughs> sama yaay yee ñu ñun ñëpp ñu jóg sol suñu yére mm-hmm. ànd ak njaboot gi dem julli ji biñ julli jee ba pare dem nañ baalu àq ak kër yi ñu dendal biñ ñëwee tëral nañ suñuy xar ko. def ba mu baax def ba tabaski gars yi dañu gis ni doomu aadama ci bari tabaski bésub émotion la ci ñoom ak tristesse euh, boucher kan la bëggoon mu fekkee tey tabaski wala koo xam ni saa bu tabaski jotee rek xelam dafay dem ci moom. waaw man nag kenn rek. kenn kese kese kese kese la xel sama xel di dem ci moom muy sama benn xarit boo xam ne tey ñun ñaar ñoo nekkoon ay xarit juddoondoo yaroondoo ci moom laa jaar nekk boucher moom moo ma jëloon ambose ma te sama xarit la man dama yàgg yàgg nangu lu yàlla dogal maa moom ñoo maase kun bi ñuy bi ñuy bi muy génn àdduna vingt cinq ans lañu am man ak moom yëpp mu nekk xale bu ndaw yàlla dimbali ko nag teral ko moom mu gëstu ma jël ma may liggéey ci moom ji jaay yàpp moom moo doon rey nag yi di ma jox man may jaay moom moo doon rey nag yi di ma jox may yenu mu may fay journée moom laa doon àndal di dem di jënd ji ay nag mu may fay journée nekk sama patron waaye sama xarit la maa ngi moom ñooy ànd fépp ñooy defandoo lépp sama xarit la mais teewul liggéey bu jotee dañuy liggéey mu may fay. waa dafa génn àdduna muy laay mu ndaw kooku laa doon paase ndool tabaski kooku laa doon paase ndool korité kooku laa doon paase ndool màggal kooku laa doon paasandoo lépp ci àdduna feetu korite bu jotee day rey ay quarante nag Sénégal gépp géej a waaye marché bees ak fépp moo leen doon jox yàpp ñuy jaay di ko delloo xaalis bi man maa doon jëli versement yi tabaski bu jotee ñu dem jënd suñuy yére nduroo ay yére xam nga te seexandoor la daal sama seex la mooy sama seex laay mu ndaw rek kese laa xam ni mhm. moo may manqué ci tabaski chaque jour ak korité mhm. parce moom rek laa ci doon àndal Boucher dañuy dégg souvent Boucher bu weex sama yaay sama yàlla bu Boucher ana góor gi waaw sama papa mi ngi fi mënuma di wax ci moom moo tax lan moo tax waaw damaa xam ni dama am baay boo xam ni dafa jafe ci baay yi te su may wax ci moom tey sama yaay miin naa ko miin boo xam ne ak yàpp ko yàpp boo xam ne sax su wala wala benn cofeel boo xam ne su may wax ci moom garaawul mën naa ko gérer mais sama papa du ma siggi xool ko. lu tax parce que dafa nekk baay boo xam ne dafa jafe ci baay yi baay boo xam ne tey tey amaana féete na njabootam foo xam ne tey chaque jour da ngay gis ñu naan yaay yaay yaay mais am na baay yoo xam ne tey taxawu nañ nit foo xam ne yaay sax taxawu fa doom mm-hmm. ndax tey boo amee sa papa mu yërëm la bëgg la. teggil la lépp lu metti looy def mu ne la waroo koon def man maa ko war a def ba tey mm-hmm. looy def mu ne la man maay ma man maa la war a yor ba tey wala mm-hmm. man maa la war a defal ngay fipp sama papa su ma fippu woon yor sama kër yor sama yor këram ba tey amaane damay ñàkk jom mm-hmm. ndax doon na baay boo xam ne tegul doomam dara du laaj dara du sonal kenn du la woo du la lijjanti ci lenn lu metti bu la wooyee ñaan la ñaan ñaanal la ñaanal la ba pare pare suba ba tey mi ngi may woo téléphone. Hmm. suba ba tey mi ngi may woo téléphone jëluma. d'accord dinaa ko jël fii sa kanam ndax xam naa li may doyee te bu ma ko dégloo moom kese. Hmm. man kese du baax si man. mën nga ko ñun moom xam nga ma <laughs> Madoune Diouf man kër bukki laa dëkk nee naa li may def sax dama ko gëj a def ndax duudoo ma remplacer léegi moo toog ci xilaafa gi waaye tey jii solaat naa sama xaftaan Madoune Diouf kon ñu. bu nag mi ngi ñu déglu waaw France. non ñun ñu xam nga ñun moom. ñun ay malfaiteurs lañu. mais moom. Mhm. suba ba tey. mi ngi may woo suba ba tey jëluma ndax xam naa ne su ma jëlee dina ma wax ay wax yoo xam ne. Mhm. sa journée mën na yàqu. waaw moo tax damay dama doon ignorer appel bi ñuy ba bàyyi ba après comme fête bi passé ma nekk samay business ma woo ko téléphone. nii xam naa ne Paris guddi na. ndax mi ngi foofu bu guddee bu guddee yàqul dara yàqul. jël ma sax papa. allo. papa maa ne la man kay tëddoon naa. tey suba ba tey yaa ngi may woo waaye damaa jàppoon bi laay. waaw waaw noonu la may amul solo. gisoo maa ngi nii sax ak waa Improd. Mhm. ak benn sit internet. mu naan ma yow da ngay da tudd sa yaay rek doo tudd sa papa lu bari man leen sama papa mënuma ko di tudd bu ma wooyee sax duma ko jël yenn saa yi ndax bañ mu may wax wax yoo xam ni day daw sama yaram. Mhm. ma ne ko xaaral ma jox la buur buur a ngi nii am buur. papa nuyu nañ la. <laughs> waaw buur ñoo ngi lay di la wax déwénati baal ñu àq. baal nañ leen àq baal leen ñu àq di ñaan yàlla sunu borom yal na yàlla boole jéggal barke Cheikhul Khadim. amiin yaa rabbi yàlla. Boucher la ñu toogal nii en direct sur Impro ak Bipro Média man maa ko posé la question ne ko chaque jour damay dégg nga yaay yaay mais Boucher lu tax du ma faral nga doo dégg <laughs> góor gi lu bari. mu ne ma xaaral ma woo la ma ma woo góor gi di nga xam raison bi tax duma ko. woo lu bëri góor su ma doon laaj kon mooy Boucher. waaw moom mooy sama taaw. Mhm. waaw vraiment doom doom doom doom ju ju ma gërëm. Mhm. waaw li li ñuy wax noonu dañ ko naan toujours moom benn dañ ko naan lépp lu muy def dañ ko naan sa papa nga ko doon noo yow sa papa la moom moom daanaka moom. Mhm. li ñuy naan li muy def lëp dañ naan doo doo ci dab sa papa. loolu lañ koy wax. Mm-hmm. yaayam da koy faral di ko wax loolu. Mm-hmm. waaw moom moom wax dëgg fa la doom la boo xam ne am na sama kersa. Mm-hmm. kersa moo tax kersa kersa moo waral loolu daal moo waral loolu. waaw ndax bu ñu toogee du ma xool bu ñu toogee ay bëtam. du jàkkaarloo man. waaw parce que xam nga doom bu la joxee cër rek yow yaa ko jox cër. boo ko joxee cër dalay delloo cër boobu mhm. loolu moo waral loolu mhm. waaw tey lan moo la gën a marke ci ci Boucher wala bés boo xamante ne que doo ko fàtte mukk sa diggante ak moom en tant que ak doom li ma gën a marqué ci moom mooy que ne moom dafa nekk doom joo xam ne mhm. lu mu jàpp su ma ko ci xase ba wax mu bàyyi lépp lu mu jàppoon. Hmm. ngir li ma ko wax. Hmm. dana doom joo xam ne wax dëgg fa yàlla déggal na ma. Hmm. déggal na ma musuma ko wax dara mu teggi wax jooju musul am. musul am yaayam moom ñuy wax des fois yaayam bu amee soxla sax ci man mii la koy jaar. yaayam bu amee soxla ci man mii la koy jaar. Mhm. parce xam na ne man su ma ko waxee lu ma ko wax mu def ko. tey fi mu toll ci réew mi tollu fa ci xolu nit ñi yàlla may ko relation bu ne euh, lu la bett la walla loo séntu ci moom la. no xam nga àdduna mënuñu ne sax lépp lu lépp luy ñëw rek dañ naan yàlla. Mhm. mais boo nekkee xale. judd mhm. fi nga war a juddoo mhm. yow lépp moom lu mu lu mu njëkk am lu mu lu mu mus am mhm. daf ko teralee ndeyam ak ay wayju daf ko teralee ay woy wayjuram parce que fa la ko njëkkee mooy mënoon na am dem dem dëkkaani mais dafa am bokk ñun nekk ci biir kër gi ba fu mu nekk ni sax xew bu amee boo gisee tabaski wu jotee day tëj këram ñëw si biir kër ga loolu rek ça veut dire que ne fonk moom dafa fonk ay ay way juróom mm-hmm. dafa fonk ay way juróom parce que bu leen fonkul woon moom toll na ci dëkk bi mm-hmm. tollaay boo xam ne lépp mun mm-hmm. na ko def ci ci jëm boppam mun na ko def ci ci boppam daal mooy toog fi war a toog nit ñi fekk fa mais xeebu ñu daal tey ci bésu tabaski bi loo ko bëgg a wax <laughs> man euh, li ma ko bëgg a wax mooy li ma ko waxoon rek Mm-hmm. li ma ko waxoon rek laa ko wax man mooy sama taaw mm-hmm. moom dafa am ay raqam mm-hmm. man taxawaay bi nga xam ne moom laay taxawu ci biir kër gi moom laa bëgg rek mu taxawu ko loolu rek la ma desal mooy mu uf ay rakkam yëpp ñu mbokkal bàyyi loolu rek laa xam ne loolu rek la ma desal loolu rek la ma desal mu ngi ciy góorgóorlu mais lu mu ci mën a góorgóorlu mu góorgóorlu ci parce que man. Mhm. ku ma xam ku ne xam ne dama fonk doomu aadama. Mhm. damay sonn ci ay nit. Mhm. damay sol si njabootu jàmbur. te loolu yàlla fay sama njaboot. que li may sol ci njabootu jàmbur moo ëpp sax li may sol sama njaboot. loolu nag moom laa bëgg mu di si gën a jëmbat. Mm-hmm. parce que boo jiitoo rek day metti xam nga ko jiitu moom. Mm-hmm. lu ñëw rek sa bopp lay tegu. dëgg la. waaye mais boo ci góor góorlu rek yàlla mun na la ci fal jàmm. ndeysaan metti na nag. Mm-hmm. metti na nag mais daal dama bëgg rek mu gën góor góorlu ci loolu. ndeysaan. waaw loolu rek la ma desal. ndeysaan jërëjëf papa kontaan nañu. waaw maa ngi gën a bég. ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw papa naa la waat suba incha allah. baax na waaw ñu déggantoo waaw bu ci defee kàddu ñun ñoo ko déggandoo. Mm-hmm, dëgg gi sant na gërëm na soññ na. Mm-hmm. noonu la adduna moom boo ci nekkee da ngay da ngay déggal say waajur. Mm-hmm. boo leen déggalee rek lépp loo bëgg da koy am. day yomb. man soo gisee nit ñi naan boucher boucher boucher chaque jour boucher lu mu génn dugg ci leneen te lépp lu mu dugg rek day nekk lu jub day nekk loo xam ne nit ñi dañ koy amee mm-hmm. yooyu ñaanu yaay la ak ñaanu baay mm-hmm. na man mun naa waat ci yonent bi wala ma waat ci yàlla ni Sénégal amul ku fiy dox ku mëpp ñaan amul mm-hmm. muy ci ñaanu way wayjur muy ci ñaanu ay xalif muy ci ñaanu ay xarit muy ci ñaanu ay mbokk Boucher dafa fidèle en amitié ba souvent ki xamul dafa day jàpp ne que Boucher day cogg nit gars yi baat boobu sax la ñuy utiliser Ismaïla Bass Matar Diop Soubatel Badara Gadiaga sama waa ji ah Pape Diouf Birane Ndour ah euh, soxna Moumi soxna kii soxna Moumi Kébé soxna Bali Muntaxa dañu jàpp ni Boucher dafay cogg te alors que dafa fidèle en amitié waaw ñooñu ñëpp de tere laay waxee mhm. koo ci dem ne ko ndax buuse mës ngaa xam soxlaam mu waatal la ni mosumaa xam soxlaam ba ci ñoom la jóob ñépp amul pourtant gars dañu gis lu buuse dañu jàpp ni que da ko lijjanti quoi barke Serigne Touba Xaadimu Rasul kenn xamu ci sama soxla barke Cheikhul Xaddim sëñ Touba nee naa la man lépp lu ma wax rek sëñ Touba ciy dëgg li ci ne li ci des yëpp ay fen la man lépp lu may def ci àddina dëgguwul ay caaxaan la man sëñ Touba rekk a dëggu ci man su ma waxee ci sëñ Tuubaa dëgg la su ma waxee ci leneen bu la neexee mën ngaa jàpp ni du dëgg lenn rek moo may metti sama àdduna ma wax ci sëriñ bi ñu ne ma du dëgg. bu si lu ko boole ak sëñ Tuubaa. waaw damay ñëw. waaw kon waa ñu dem fee rapidement ñëwaat. si lu ma wax. Hmm. soo demee buusa da ngay fel du dëgg. damay rettaan jàll du ma ko xuloo du ma ko xeex. Hmm. waaye su ma waxee ci sëriñ bi boo demee du dëgg rek mën nga maa rey wala ma rey la. Hmm. ndax sëriñ bi rek dëggal moom rek kay samay ñooñu ngor laa ànd ak ñoom ak dignité ak ay valeur ñooñu ñëpp cër gu ñu ma jox ak yëg-yëg gu ñu ma jox ak ma xam ne réew mi boo fi nekkee dangay am ay kilifa amaana su ma amul woon ñooñu tey lu ma neex mën naa koo def ci dëkk bi waaye fi mu ne nii su ma waroon def lu bon sax su ma xalaatee Lat Diop wala ma xalaat Birane Ndour wala ma xalaat Matar Diop suba teel wala Pape Diouf du ma ko def wala Aziz Ndiaye ak ñooñ du ko def nit da ngay am waa tey ñooñu samay kilifa lañ samay papa lañ dama leen def papa def leen yaay def leen mag def leen xarit. parce que ñooñu tamit mosuñu ma digal lu may gaañ. ma njëkkee ko ci Matar Diop suba teel rek bi ma jógee Amérique ñëw daf maa xëcc ba ma ñëw du ñaat dërëm bu ma jox waaye jox na may conseil boole na ma ak ay sponsor yoo xam ni lijjanti nañ ma ba ma dëgër këñ. Hmm. tey buñ la nee ay wan exhibit kenn moo tax. Matar Diop Subatel moo tax. dëgg la boo ko fi dugal. buñ la nee sunu bët kan moo tax ñu jox ma xaalis. Mm-hmm. Matar Diop Subatel moo tax. Mm-hmm. buñ nee CO bañ may jox xaalis bu bari. Mm-hmm. kan moo tax Matar Diop Subatel la loolu boobu maa ngi soog a ñëw ñu jox ma xaalis ma dëgërlu. dëggal sama bopp Matar Diop Subatel moo tax. tey buñ naan NMA Sanders. di wax ay laaliyaa kan moo tax du biraan nañu waxante dëgg. kan moo ma booleeg Birane tey du Matar Diop Subatel. kan moo ma booleeg Badara Gadiaga tey du ma Matar Diouf suba teel. moo eh, ma booleeg tey Matar Diouf suba teel du Pape Diouf. Mm-hmm. noonu la kan moo ma kan moo dëgëral sama digganteeg Lat Diop du Matar Diouf suba teel. Mm-hmm. kan moo tax Lat Diop wóolu ma ba def ma ci boppam du Matar ak ñoom Pape Diouf parce que ñooñu ay xaritam lañ ñu gis ma may ànd ak ñoom dëggal sama bopp mu bëgg ma. Mm-hmm. wóolu kan moo tax tey Birane jàpp ma. Ismaïla baas lan moo tax mu jàpp ma bëgg ma du Pape juuf mhm. mii sëy ak rakam. Mhm. noonu lay demee. kan moo tax Aziz fonk ma. Mhm. du Balla Gaye dee. waaw ah, waaw Balla Gaye dee kan moo tax mu fonk ma. du géejewaay bi ñu bokk. ñooñu kon mënoo dem bàyyi leen du alal ñooñu du ci kenn ku may taxaw sa kër ne la may ma 100 francs wala jox ma 100 francs seen conseil laa soxla ñu ngi ma koy jox. ak ñu am fu ñu ma dugal ma mën a lijjën sama bopp ci wàllu sponsor man rus naa di ñaan doomu aadama kon ñu bari dañu bëri bu busee dinañu rus tey sa tontu man loolu moo may dugal aljana waaw man xam la moo may dugal aljana hmm. man lu ma neex mën naa koo def ci Sénégal ba nga ubbee restaurant bett ñu bëri ah. ma ne lu ma neex mën naa koo def Sénégal te xam naan dinaa dugg àjjana te li may dugal àjjana mooy wax yu ñaaw yu ñuy teg sama der te du dëgg ak di la sosal ak di ma sosal sa diggante ak sëñ Tuuba lan la da nga da nga judd doon murit dala dab Sidi maa ngi ñëw de mun a koo dem de Zénith bi foog ñu waxtaanee ko. noo yàgg buur la. Sidi da Sidi. waa mais bul daw. waa baax na Sidi <laughs> Diop waay la. la <laughs> ma la boole sëñ Tuuba. waaw sëñ Tuuba dafa maa ji ngor. da judd doon murit wala dala dab. waaw dama juddu man samay wàllu samay côté maam bu góor hmm. ay tijaan lañ hmm. sama côté yaay ay murit lañu hmm. waaye sama papa moom dafa yàgg soppu sopp murit yi man it ma juddu gis loolu sopp murit say maam dañu ànd ak sëñ Mbàkke Madina kase kase waaw sama sëñ Mbàkke Madina mooy seen sëriñ <laughs> man ma juddu kër gi ma yoroo fala la bi gën a mag ci Sénégal nekkoon muy nixmatu rabbal alamin mhm. falaa njëkk a toog kuréel midaad di falaa njëkk a toog kuréel jës bu mhm. ci sama wetu maam mhm. falaa njëkk a toog di dégg xasida yi sëñ tubaa waaye sëriñ tubaa dafa ma ji ngor damaa nekk xale nekk ci xat-xat di jugu ko daanu nekk ak samay moroom yoo xam ne ëpp ma leen gënuma leen yaay gënuma leen baay gënuma leen judd ëpp ma leen daraja ëpp leen doole gënuma leen dara ci àddina mu ne ma coppet ci biir ñoo ñee hmm. teral ma yaa ngi dégg déggal sëriñ na dinaa ko waaye damaa amul njàpp te man xasida yi sëñ Tuubaa yi su ma ci su ma su ma koy yëkkati fo damay damay set damay sell sëñ Mbàkke nii awma njàpp ndax tuur naa ndox sànq waaye bu ñu ma mayoon nii léegi ma jóg. jàpp ñëwaat daajal la midaadi. mooy bu ma ja. bul ma jàngaloo waaye bul ma jàngaloo bul ma jàngaloo déedéet. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw dama ciy dama ciy sopp nag bala dama ciy sopp nag. waaw lool loolu dama ci. man daal man daal Kër Matar tey ay malfaiteur rek laa fekk tey <laughs> xoolal Zoriba. loolu dama ci dama ciy bëgg set sell. Mhm. aussi toi daf la ji ngor daf la lebal loo xam ne jàpp nga ni da nga ko war lebal loo xam ne ah man sama àdduna teraange rek laa ci bëgg te sëriñ bi jox na ma ko di. Mhm. Ah. fii kuy dund teraange nga bëgg. Mhm. kuy dund jàmm nga bëgg. te sëriñ bi jox na ma ko. teraanga àdduna ak alaaxira sëriñ bi jox na ma ko. kon man lan laay wuti Boucher allons un peu très vite waaw Matar Diop suba teel mooy organiser ak Sidi Diop ku songu événement bu mel noonu dana am ñu taxaw ni mën na nekk dina am ñu taxaw ni mënul nekk dina am ñu taxaw yàkkamti nga am ci succès boo musul am waaye dina am ñoo xamante ne que yàkkamti nañ mu échec c'est Sénégal nag quoi noonu la noonu la noonu la noonu la mës demee man leeralaat lan Sidi Diop demul Zénith pour ay fees na ak feesul ak kërti kërti Sidi day dem Zénith parce que sénégalais yee ko yónni yàkkamti ko sénégalais yi ñoo maase ne Sidi génération am yëpp moo ci mën sénégalais yi ñoo maase ne Sidi fi mu nekk nii dafa nekk au top génération am boo nee Pape Diouf da nga naan Youssou Ndour ñu waxal yàlla Mm-hmm. ne Pape Diouf boo nee Wally Seck di Diop nga ci teg. Mm-hmm. Pape Diouf dem na Sidi euh, Youssou Ndour wër na àdduna. Mm-hmm. Pape Diouf wër na àdduna Wally wër na àdduna yu Sidi nag moo war a wër àdduna. c'est son tour. c'est son tour léegi tour boobu moo yegg si moo tax te moom tuuram fi mu ko tàmbalee Wally tàmbaleewu ko fa Pape Diouf tàmbaleewu ko fa Youssou Ndour tàmbaleewu ko fa. ñooñu lañ doon korkororol di dem ci dëkk yu ndaw yi ay Australie yooyu di tëgg ay boîte yu ndaw ba ne waaye Sidi daa ñëw rek na pëccëx Zénith. kon Zénith neex na xarit day toj. mooy bébét Zénith. Zénith fi mu ne nii boo demee ci kanamu Zénith bi. Eh. xam nga ko fa xewle dañuy def sa photo. Mhm. def say affaire saa yoo ñëwee di romb affaire yi muy tàkk. bébé Zénith la ci waa France binde tubaab yi nee nañ mosuñu am xale bu am ase bii mu am au Zénith day tëgg Zénith. démarche bi mu def avant Zénith mooy dem seeti Kuneya. seet Youssou Ndour Baaba mal Ali Mbaye Nder Viviane maanaam artiste Sénégal yëpp ku ci ne mu jox la cëram invitation dem ba gisee Soriba nangam nangam mais <coughs> li ci gën a marquant mooy visite bi mu def ci digganteem ak Wally Ballago Seck leneen li yi di kii nag mooy gis na ñaari artistes yi boole gu leen coow li muy Tarba Mbaye ak El Hadj Keita quest qui se waa Tarba Mbaye chaque jour mi ngi fii du jóg ci mataar du jóg ci Seydi Seydi xaritam la mm-hmm. Tarba Mbaye su ñun la bokk jarul sax ñu koy seeti mm-hmm. El Hadj si ñun la bokk jarul ñu koy seeti mm-hmm. dafa am ñoo xam ne jarul ñu leen di seeti buñ bokkee ci yow tey dafa am yoo xam ne tey gis nga nit ñi dañuy wax benn affaire Seydi seeti na Pape Diouf sa def na coow seeti na Youssou Ndour sa def na coow ñooñu waale da leen ëpp daraja déedéet xam nga lu tax bu waalo bi def coow. Mm-hmm. nit ñee ko foogul woon. waaw keroog de nee naa seytaane jooy na keroog yuuxu na. waaw nit ñee ko foogul woon ak li ñu doon wax seen diggante ñoom ñaar concurrence bëggante wu ñu bañante yi. Mm-hmm. léegi bu yàlla defee ba ñu rencontré wu. Mm-hmm. adduna bi da leen di jaaxal. loolu moo def mu ampleur am ampleur mi ngi mel ni sama inigration bi rek. Pape Diouf ñëw na fa. yu kii euh, di ñëw na fa ñëpp ñëw na fa. <laughs> Mm. bi waali ñëwee daa def effet. mais pourquoi wala dafa am ñoo xamante ne que discorde boobu moo leen di dundal. waaw man nit ñëw na ba ci man ne ma yàq nga showbiz bi nit ñëw na ba ci man ne ma bàyyi la nga man showbiz dugguma ci pour ay noonu. Mm-hmm. man showbiz man la man senegal gépp showbiz man la ku ne xam na ni. Mm-hmm. nii ma toogee nii nii nii di wax ak yow nii su ma bëggoon taal dëkk bi suba taal ko. Mm-hmm. te bu ma paree damay dem tëddi nelaw ndax noo xam ni tey. àdduna bay tàkk waaye nit ñi dinaa boole seen biir ba ñu xam ni ndaanaan wax na. Hmm. mais tey day am fu muy toll nag nit dangay xawma xaw ma nen reculer souhaité. Hmm, mieux euh, il pour mieux parce que man lu mu bon bon bon tey am na ñoo xam ne tey ñu ngi ànd ak Wally Pape man rek lañu bëgg ci àdduna. njortu nga Wally Seck ne jumet biir sa nit. fooguma ko. wala lu tax foogoo ko. dafay teg mais moom. moom dafay tëgg jour bi Sidi Diop di tëgg. dafay day tëgg fële Allemagne xaw fan. mais moom lancé naa ko ci benn kii moom mën na ñëw moom mën na ñëw te man xam naa ni mi ngi mi ngi travailler loolu. parce que Waly ñëw Paris waaw Zénith minuit lay jeex. 23h minuit. Mhm. moo tax ñu naan nit ñi 17h. 17h pile nañ fees Zénith sénégalais dafa bari caaxaan dafa bari ay yéexantu. te Siri Siri lim spectacle bi mu nar def Zénith bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey. amul artiste bu ko def Zénith. ndax spectacle total bi ñu préparé. doy na waar doy waar boo xam ne sénégalais yëpp dinañ ci teg bët. te du ay caaxaan man xam nga du ma waxantu. mun naa leen ko waatal ci Xaadim Rasul. Zénith day toj ñoom ñëpp a ngi waaj. ñëpp a ngi waaj. dafa am benn affaire bu ci ne. 23h lay jeex minuit. Mm-hmm. Wally Seck deux heures du matin wala trois heures du matin lay yéeg fële Allemagne. Mm-hmm. Allemagne ak France su ma juumul cinq heures de temps la six heures de temps dawal voiture. Mm-hmm. Wally bu teelee ñëw France. Dio ak Sidi Diop ay vingt heures day day mën a méegaat dem Allemagne te présence am dañ ko fay soxla. parce que tamit bu dul dara. am na dix personnes yoo xam ni mën na leen faa indi. te Wally moo tax yu ñëw seetaan si ko. te nag moom lancé na parole ni na ñëpp ñëw ñëpp génn te man am naa yaqin ni mën na ko surprise. Mm-hmm. ñëw te xam naa ne incha allahu rabi dina ko def. fi may tëjee euh, ana Simba. tuddul Simba. ana Fawzeyni. day jàkkaarloo. non ñëwaguma foofu waaye jiw bu ma yàqal waaye ana Simba. xaw ma kuy Simba. ana Cuquli. xaw ma Cuquli. ana Fawzeyni. xaw ma Fawzeyni. ana le lion de Guédiawaye. kañ Balla Gaye 2 <laughs> Tapha Tine day ah ne bëgguma wax Diouf Tapha jekk na de kan am ni Moustapha jekk na waaye jekk du ci ay dooleeg habillage mais Bousse pourquoi nga naan Tapha Tine habillage la Tapha liggéey ba mel ni mu war a mel dama ne jekk du ci habillage ci lan la coffre ak forme ci lan la xool ah ci lan la xol bu kii quoi. condition physique. xamul ah, xaw ma léegi moo waxal. fit mooy ab mooy mooy jom. fit. mais bu sa arrêté waaye. kon yow pour yow Tapha amul fit. yow ban mbër moo ñemee jàkkaarloog Balla Gaye jamono jii mu lay xool nga koy xool. keroog de xool na xool na Balla Gaye de ne ko dama lay coob. waaye bàyyi ma waaye yow kooku doon salaire bi muy yuuxu noonu da doon génnee stress bi muy yuuxu bopp bi fees na xam na ni lii mu jël tey dina mel ni tokk sa bënn saañ ba ci moom. cest à dina métti ci moom trop. Simba mën na dina daan mën na daan Tapha boo waxee Simba du mën a tontu. Balla Gaye mën na daan Tapha ci lu yomb. ci lu gaaw. ci ngeen ko teg bëre doole. Balla Gaye làmb ji du indi téere. <laughs> ah xaaral ma ko sax man dey ngóor si buuse buuse sa wax ji foo ko teg. ba bis ba bu wax ci làmb di nga ci wax de man ku jàkkaaroo nga wax ci làmb ji. du ci wax pare naa ci. Tapha Tine muy dóoraatee. li ma la wax nii yëpp jàppal pare naa ci. barki Serigne Touba du pousse passe bool bool luñ luñ gis dara. pare naa ci wax ci. ak coalition deux cent pour cent bool bi am. deux cent pour cent Balla gay 2 moo ko njëkkee Géejawaay. Modou Lo ne fekk nekk fële di reñee di reñee di doxal nguuram. ba bis ba incha allah le 27 juillet yàggatul. Hmm. kon daal jàpp ngeen ni que Balla Gaye 2 dina doon le nouveau empereur de l'arène ba bis ba incha allahu rabbi mais bu dokkee empereur Modou Lo doon yéen est-ce que couronne Modou Lo bi dérangé wu leen. déedéet Balla Gaye moo gën a nangu ndogal ci àddina. kon créer couronne royale pour lan euh, couronne de l'empereur loolu moom. mais am nañ ci droit. ku ne nit nit a ngi ñëw jël ay drapeau am tuddee ko sëñ Mbàkke wala mu tuddee ko buur géwél. bu si li ngay wax ni ñëpp d'accord ñu ci couronne empereur boobu ndax Modou Lo est des arènes. couronne empereur bi bu jour baa man mii maay sol tisetu empereur wala mbasin empereur dugg ak moom empereur bi bu dee empereur bi la ñuy bañ a dégg far la force dinañ ko dégg. mais yéen Modou li mu ko doon kon moo leen naqari. déedéet Modou Lo c'est le roi des arènes de tous les temps. te ndaanaan la ma nangul ko trois des arènes am ndax dafa daan ñaari xale yi gën a tëj ci làmb tey Modou Lo mënoon na jël roi des arènes di xool lu nooy mais daa jël roi des jël ay champion daan leen Modou c'est le roi des arènes. c'est un Modou je te je le mais champion la. mais man làmb ji bu ñu nee Balla Gaye de Modou laa ci teg. Siteu mën a am dara bañ a mën a am. Hmm. bañ a mën a am. sénégalais mooy xeex doomu aadama te xam naa ne Modou Lo ma gis. Hmm. Euh, gars yi ñu bari dañu bëgg a daaneel nguuram. mais ndax la. waaw parce que Modou Lo yor bi mu yor roi des arènes bi nii di leen manipuler neexu leen. Modou Lo dafa lu mës a am la def. Modou daa jël roi des arènes di tànn ku muy bëri la ku mu bëri faalewul amateur maanaam amateur liñ bëgg Modou Lo bëggul loolu. mais boss yaay tiire ci kaw Modou déedéet dama la ma mu moo yaay daa xeex ba jël ko jël na ko. Hmm. jàpp amateur yi bu ñu nee Modou Lo Tapha Tine def nii jël keneen. bu ne Modou Lo Balla Gaye mu ne bëréwumaa Balla Gaye kii laay bëréel bu ne Modou Lo Gris mu ne bëréwumaa Gris Bordeaux kii laay loolu mooy manipulation mais jàpp nga ni Balla Gaye Modou Lo mënati na nekk ci àddina lu tax mënta nekk troisième round waa parcelle yi nee nañ na lan waa parcelle yi waaw waa mais loolu loolu loolu làmb la Modou Lo Balla Gaye dañuy fayeeku ñoom ñaar ñëpp xaalis Modou Lo ci yoonam di def feuille flamme mais jàpp nga ni mën nañ dajawaat dañuy dajawaat kañ Modou Lo di liggéey xaalis Modou Lo ak lim fi wax jàpp nga ne dina bëriwaat. waaw yow bàyyi ma Modou Lo fi dara lu ay Modou def ne duma may kenn duma du ma bëriwaat revanche mais am na ci droit moom wax loolu mais tey Modou moom dirigé wul boppam ci làmb ji la nekk mais Modou Lo tey bu Balla Gaye daanee tafaati laa ilaha illallah yéehe <laughs> ci Modou Tafa Modou Modou Modou de loolu loolu waaye yaayu Modou Lo rek laa ciy xalaat ndax moom nee na di dégg baatu bëggul di dégg Balla Gaye ndeysaan ndax bëgg Balla Gaye looloo ma ci jaaxal man daal làmb la daal làmb daal moom fu ne mën na faa tere. jërëjëf euh, mu ngi noonu Modou defe naa ça a été mais quand même c'est normal xanaa rek euh, boucher di gërëm Badara Gadiaga waaw gërëm ko de. xam nga àddina wolof dafa ne as gor ku ko teral. tëral ko hmm. man buur yàlla dafa def ni je ne suis pas demandeur de rien. dëgg la. yàlla moo def mu bëggal ma boppam. Hmm. man. léeg mu jël téléphone am vocal ma vocalu cinq minutes damay sentir ni nit kii mu ngi may bàyyi xel fu ma toll te mënuma muñ quoi tabaski ji dama yeewu barki Cheikh mu Karim bi ma waaw dama yéemu quoi en fait parce que euh, bett na ma quoi. ah léegi mhm. Badara képp kuy xaritu Matar Diop suba teel. Mhm. wala. doomu ndeyam wala wëllëreem teral na la ci tabaski bi ñakkeeru ñakkeeru laa koy buur bég na barke seexul xaddim non du yow kese waaye sama xam ne bu ñu bu ñu bu ñu mënoonoo bu ñu mënoonoo wax eh, génn nañu wax ndax nee naa ko dafa mës a indi arrêt dafa façon yi ngay def te bu koy def ñeewu la barke faalewul loo am hmm. ba dara nga mën a ñëw mu nga ëppale ko fuuf nga yor sa xaaj nii nga ëppale ko fuuf hmm. man ñëw naa benn jour toog ak moom mu ne bougé ma xool sa Wave mu gis sama Wave am un million quatre cent hmm. mu ne ma léegi lu ma de daa am ñu may yónnee xaalis te yoruma nii Wave hmm. léegi yónneel ma leen ma jox la liquide hmm. mu ne ma diw ma yónnee ko mu ne ma yónnee ko deux cent cinquante mille ma yónnee ko mu ne ma diw yónnee ko deux cent mille ma yónnee ko mu ne ma diw yónnee ko trois cent mille ma yónnee ko mu ne ma diw yónnee ko ma yónnee ko xam nga kooku sama xaalis gis na ma ne am naa huit un million quatre cent bi mu paree dafa ma fay lépp ba pare ne ma yow sa tabaski ngi nii. alhamdulilah. wala yow am yaa moom lii. nit ku baax la. bu ko neexoon ni hmm. kii may jox nii. am déedéet nit ku baax la man j'avais connu. Oh, j'avais connu non man j'avais connu son père. waaw waajuram bu góor laa xamoon mu nekk Bathika Dieng un très du réew mi ñu daan tase Kër Moussa Fall waaye Diouf maa ngi gërëm Makhtar Diop. kooku rek war a am na. waa déedéet xam nga li tax Boucher. xëy na sax yéen xamul ndax yéen ñoom sëriñ ak ñi garaawul parce que yéen ak ñoom yéen ak Matar a nekk au quotidien man dañoom benn bés dama ko yëgal bés sëñ Mbacké Madina te xam man bés boobu ku ma ci door ma fayu mu ñëw ma ne ko booy nañ def vidéo mu ne ma déedéet xam nga li tax buur ma ne ko am mu ne ma y'a certaines relations c'est des relation à sauvegarder te su ma la exposé rek bu subaa ñu gisee ko nen te bi ma xamanteeg moom ñuy séq ay mbir ak ay teraanga ak léegi barki xaadimul mustafa léegi mu léegi mu mat huit ans waaye di gërëm Abdoulaye si Ala Ndiaye sama waa ji Baye Ala Ndiaye tabaski ji cuq na loolu Kéba Kanté sama waa ji Adama Faye tubarkalla ah non tubarkalla man kay sël mu naa man malfaiteur mag yi wax dëgg yàlla yonent bi noonu giijal naa wax wax dëgg yàlla yonent bi soxna aada Serigne Mamour Seck ah Serigne ah bàyyi taati yónnee ma xar góos ah léegi waaw taati ak le grand jaraaf Abdoulaye Samb la grand la jaraaf di Cap Vert barke Rasulullah et du Yoff léegi léegi man dama taxalee Boucher looy tàggoo <laughs> non li may li may tàggoo damay gërëm mattar Diop suba teel mi nga ñëw nii wallaay man dama daan kooku rek a war a am senegal un homme sincère kooku kooku kooku kooku hmm. kooku nam lay joxe sedd na sa hmm. xol. kooku Matar Diop Matar Diop suba teel rek ngay ñëw mu lay xool xoolinu kaay ma jox la kaay ma jox la wala di la jéem ci ay waxin da ngay ñëw rek mu naan la yow da ngaa de tey da ngaa banque gis naa la yoroo dara instant bi waa kaay yooyu kenn defatu ko Matar a baax Matar il est kenn la ci réew mi Matar soxorul Matar yéene ñëpp jàmm moom kuy dund daal moom pour moom da war a am. ba ëppale ko. man de ko di sama kaw. kenn du moom. Ah, barki Cheikh xam nga di ko gërëm bu baax. accepté sax Matar Diop suba teel di gërëm nag sama wëllëre sama xarit. Alaaji Sàppali. Alaaji Sàppali ban. waa dëgg maa Lamine fa déedéet Alaaji Sàppali ñëwagul Alaaji Sàppali dernière position la hmm. man sama xarit sama wëllëre sama kilifa. Hmm. ki nga xam ni dama ko wóolu. bëggal ko sama bopp sopp ko lan Diop bul ma dog <laughs> kooku daa am bàkkam ci man kooku dama ko gëm wóolu ko sopp ko naw ko respecté ko bëgg ko kooku rek a tax fi mu ne nii bu ma nelawee damay yàndoor hmm. kookoo tax man ma ra kenn sonalatuma kenn hmm. kookoo tax man ragalatuma dara kookoo tax ma doylu jamono ji ma doylu man kookoo tax dematuma ci benn kër lijjanteetuma kenn koo xam ne tey di ma ñàkkal fayda wala nga may jéem a tuutal. Hmm. kookoo tax ma xam sama bopp kookoo tax ma xam ki ma doon muy Alaaji Lat Diop baax. murid bi. mais di nga nit di sikki sàkka ci moom. yaa ngi dégg di sikki sàkka ci moom. en grand naan kii kat wóorul ëllëg mën na maa war wala mën na maa def nangam. Hmm. bàyyil ma tey ci moom. waaye Lat Diop awma ci moom sago nu ma neex mën naa koo demee ci moom mm-hmm. ndax xam naa mbëggeel gi mu ma bëgg ak yëg-yëg gi mu ma yëg ak fonk gi mu ma fonk mm-hmm. Lat Diop bëgg na ma sagal na ma mm-hmm. Lat Diop daf maa dem ba faama man Lat Diop daf maa bëgg ba xamatuma ban façon mbëggeel la ma bëgg Lat mu Lat Diop xam nga àdduna bi yëpp Lat Diop ci ëpp caractère moo ci ëpp jom moo ci ëpp fulla moo ci gën a strict mais Lat Diop bu nekk ak man loolu yëpp man day mel ni maanaam sama moroom. Hmm. ndax mbëggeel gi mu ma bëgg. Hmm. may wax sénégalais yi nag ñu gën koo bàyyi xel. Hmm. te gën koo jàppale gën koo fonk Lat Diop tey li waa Géejawaay gën a rëcc mooy li mu nekkul meer xam nga ni Lat Diop bu nekkoon maire bu Géejawaay fu mu nekk nii Géejawaay nga mel ni Paris. yaa ngi tooñ ay dara xam nga lu tax. waaye bàyyi ma waay ah, bu ma yeb waaye. non mais am na bàyyi mu tudd Lat Diop di tudd keneen waaye. Ah, waaw mais Ameth est ma waay ah, buur kii Medoune. Lat Diop bu nekkoon meeru Géejawaay nii